mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain ñu ngi yeesal sant suñu boroom subhanahu wa taala mi ngi ñu wërsëgal ñuy dund fukki fan yu mujj ca la nga xam ne mooy weeru koor loole nekk ngëneel bu dugg ci biir ngëneel looloo taxit suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daan ko ràññetle la nga xam ne mooy la ko jiitu alhamdulillah weeru koor woowee xam nañ ne moom la suñu borom tànn wàcce ci téeréem bu tedd bi loolu it moo tax soo demoon penku jant sowu jant ña nga xamee ne nii yàlla xamal na leen ca dara ñi ngi sëgg ci téere bu yàlla bi di ko jàng seen kéemtalal kàttan waaye di ko leeral seen kéemtalal kàttan ngi nekkoon ci suratul maida tey nekk suñu juróom benneelu daje ak saaru mag wi nga xam ni waxoon nañu leen ci njëlbeen mooy saar bi ëpp woote bu ñu suñu borom di woo yaa ayuha alladina amanu ñi war a jël tey ay ñeent fukki beeg ñaar ay quarante-deux suñu borom di wax ni sammauna lil kadib akkaaluuna li soxt incha allah su dee ne Cheikh Alioune pare na.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين فكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك فما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بارك الله فيك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم sunu borom subhanahu wa taala mu ne sammauna lil kadib ñoom day ñi ngi nekk di aji déglu di ngiree ay fen akkaaluuna li suxt nekk aji ñu tar di lekk lu xaraam as suxtu mooy lépp lu xaraam fa in jaauka faxkum baynahum aw arid anhum suñ la dikkalee atteel seen diggante walla nga dummóoyu leen bañ leen a atte wa in turid anhum su dee da nga leen a dummooy wan leen gannaaw attewoo leen falan yadurruuka shay'a duñ la mën a lor ci dara wa in xakamta soo demee bay atte nag faxkum baynahum bil qist atteel seen diggante cig maandute inna allaha yuhibbu al muqsitiin yàlla day di bëgg jaamam yi nga xam ne dañuy maandu wa kayfa yuhakkimuunaka wa indahum tawra ma ñoom nu ñu lay attewoo ca mi ngi nekk ci ñoom téereb tawraat fiiha xukmullah nekk na ca tawraat boobu li di atteb yàlla summa yatawallawna min baadi dalik gannaaw ba ñu daal di dëddu gannaaw loolu lépp wa ma ulaika bil muminin ñooñu day nekk ñu ci ñoo xam ne ñuy gëm lañu doon inna anzalna tawrata fiha hudan wa nuur ñun de ñoo wàcce tawraat nekk na ca njub akuk leer yaxkumu biha annabiyuuna alladina aslamu dana cay atte yonent ya nga xam ne dañoo jébbalu lilladina haadu ak ñeel ña nga xam ne ay yahud lañu dana ca atte woo it wa rabbaniyuuna wal ahbaar rabbaniyuun mooy boroom xam-xam yay yar nit ñi di leen téete ci diine wal axbaar mooy ña nga xam ne géeju nañ ca xam-xam yu kawe ya bi ma soxfidu min kitaabillah ca lañ leen wattuloo woon ci téereb yàlla bi wa kaanu alayhi shuhada ca ñoom de ñoo nekkoon aji seede ci loolu suñ borom waxoon na leen ne fala taxshawu nnaasa waxshaw ni bu leen ragal nit ñi ragal leen ma man kese wala tashtaru bi ayaati samanan qalila bu leen jënde samay aaya njëggu néew wa man lam yaxkum bima anzala allah ku attewoowul la yàlla wàcce day fa ulaika humul kafirun ñooñu ñooy ña nga xam ne ay yéeféer lañu mi ngi noonu mbokk suñu boroom mi ngi meelal yahud yi ne dañuy ñëw di déglu si ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir rek am loo xam ni lu ñu mën a fenni la ci loolu mbokk jamono bu nekk dafay am beneen dimension bu mu jël dem nañ ba jamonoy siècle yi ñuy dund ñuy dund jamono yi li ñuy tuddee média da doon lu ñuy bind la wala lu ñuy wax wala lu ñuy seetaan lu bari ci média yooyee boo xoolee ña nekk ci seen gannaaw moom mooy yéeféer yooyu rawatina juif yooyu su ko defee ñoom ñooy manipuler xalaati doomu aadama yi di indi ay information di tasaare ci nit ñi lañ bëgg nit ñi gëm ko loolu lañ leen di gëmloo te lu ci bari da ngay gis ne dara amu ci loolee di mbir boo xam ne ku nekk war na caa bàyyi xel bari na nu ñuy traiteel ay guerre soo gisee ña jóge fa guerre ba nekk ak lañ cay wax loolee dafa doon lu safaanoo lool bari na it looy dégg ci xabaar ñu wax la ko ci ay doomu aadama nga la waay yow doomu aadama dee ci teey bari na lu nit ñi di tasaare fekk ay fen kese la borom boobu nag nee na ba tey bokk na ci màndarga yahud ñoom day ay lekkikatu lu xaram lañu ay yahud xala moom xoolul ndax lii daganam daganul mooy na fexe rek ba am ca formé nañ ci ñañ ci formé ci Occident ñëpp da ngay gis dañ naan l'argent n'a pas d'odeur xaalis amul xet yow daal fexeel ba am ko rek fu mu jógee kooku amul problème amma yow jullit da ngay xam ne xaalis yu bari dafa xaram xaalisu riba xaalisu carte xaalis boo sàcc xaalis boo xam ne dañ la ko ngere yooyu yépp da ngay gis ne soxto la dafa xaram borom boobu nag subhanahu wa taala ne suñ la dikkalee day bu la neexee atte leen bu la neexee wan leen gannaaw soo leen wonee gannaaw it duñ la lor ci dara te aaya yi ba muy wàcc rasul sallallahu alayhi wa sallam mi ngi woon biir madina nekk fa ak giiri yahudi ñoom tuubu ñu dugg ci lislaam ñu nekkoon ñu jàmmoo ñoom ñu ngi woon ak seen tawraat looloo tax suñu borom ne ko bu la neexee atte leen bu la neexee bàyyi leen ñu dem seenu atte bopp amma biñ demee ba lislaam am doole yor kaddu gi à cent pour cent amul juif chrétien kum mën a doon soo amee problème dañ lay atte ci atteeb lislaam mi ngi noonu borom bi nag ne ko boo demee bay atte it atteel seen diggante ci maandute atteel seen diggante ci maandute ca mbokk atteeb yàlla wuru cee seet jullit yéeféer jegeñaale koo bokkal koo bokkaloon yàlla moom i jaamam tëral ay atteem ñépp nga war a yemale looloo tax ba gis ngeen histoire bi ñu leen doon nettali démb rek ca mooy wàllu ko sàcc nañ dagg loxoom biñ demee ba waa Makka yi wala ba muhaajiru na ñëwoon Madina am kilifa gu mag ku jigéen ku sàcc ci ñoom da ngay gis ni loolu yi daf leen yéem ku mel ni nu ñu dagge loxoom waaye yonent bi alayhi salaam da leen ni bu doon Fatima mii sama doom moo sàcc dinaa dagg loxoom loolee ñu bàyyi ci xel bu baax mi ngi noonu doonte ne loolu day nekk gàcce gu rëy it loolu la yàlla atte sama mbokk ba gisi rahimahullah bokkoon ci magi jàkka ji nettali na ma seen benn jigéen bu demoon Fuuta te booba dem jigéen Makka bu demoon benn jigéen bu dëkkoon ca Fuuta demoon Makka booba dem Makka ci jigéen sax yombul ba mu demee daal xawma ban nattu la ko fa yàlla nattu ba mu sàcc fa xam ngeen ne màkk boo àndul ak sa sago dugg ci boutique boo xam ne lépp or la mi ngi noonu gis ngeen jamono yi passé suñu jigéen ñi ci jàpp ay caméra yu demee noonu ba mu fa demee ba sàcc fa booba diplomatie yeeg information yi amul ala kulli xaal daal ba muy jógee màkk di ñëw dañoo dagg loxo bi mi ngi noonu dañoo dagg loxo bi mais nee na ndeysaan mbokk yi bañ ko teeroo ba gis loolu dañoo déclaré ne moom ko des na mag utal ko benn néeg boo xam ne ñi sus ci ñoom rek ñoo ko xam fa la dund ba fa la deeye waaye dañ ne gàcce gi moom kenn du ko génne ci famille bi ñu naan diw daa demoon mag sàcc fa noonu la nekk ci néeg ba fa la deeye gis ngeen yonent bi alayhi salaam nag ne leen bu doon te ne Fatima moo sàcc day ak lu ma ca mën a dikkal lu tey danaa dagg loxoom gis ngeen lu tax suñu borom mu ne yàlla daa bëgg ñuy maandu yàlla daa bëgg ñuy maandu yonente bi alei salatu wasalaam ne ñi maandu woon ci àdduna maandu ga day yàlla dana leen beral benn tribune boo xam ne tribune leer lay doon ñu nekk ca ndeyjooru arsh sunu yonente alei salaam ne mooy ñi nga xam ne dañ doon maandu ci seen kër ci seen njaboot di maandu ci lépp loo xam ne yilif nañ ko muy wañu na ko ndekete mbokk maandu te mi ngi commencé ci sa njaboot commencé ca lépp loo xam ne yilif nga ko ci ay doomu aadama ba baa ñuy yegg ci président de la république bi ñoom ñépp ñoo war a doon ñu war a maandu ca yàlla rek tex yàlla rek tax qawaamin bil qist shuhadaa lillah léegi nag suñu borom wëlbatikuwaat ci yahud yu bon yooyu ñu fekke woon dars darsu démb ba xam nañ ne lii ab continuer la waaye la ko waraloon dafa am ay kilifa ci ñoom yu njaaroo ca ñoom yàlla wax na seen téere ne ki njaaroo nañ ko rey ñoom ñu am ñaari atte su dee ne baadool la moom njaaloo na dañ koy rey mu jeex su dee kilifa la gu góor wala ku jigéen ku njaaloo dañ koy teg ci mbaam wëri lu ko dëkk bi toroxal ko waaye duñ ko rey léegi nag ñu ne demal leen ci yonent bi wala boog dem leen ci Muhammad comme ñoom gëmuñu ko ngeen laaj ko lu mu xam ci lii su dee wax ne leen ne nañ ko warale mbaam xayrun ko defee ñu daganal ko ndax yonent bi wax na ko su dee ne nag dañ ne na leen rey su boobaa da ngeen leen dummóoyu borom bi nag ne waaw ñoom nu ñuy ñëwee di la atte woo di la laaj ci mbir moo xam ne téere bi ñu yor tawraat atte na ko ba pare ñoom ñu bàyyi fa atte tawraat bi ñu leen wóor na ci yàlla la jóge ba pare ñëw naan dañoo bëgg yow nga àttal leen xam leen ne ñii day nekkuñu ñoo xam ne ñuy gëm lañu mbokk lii dañuy gis ne mbiri yahut la waaye léeg-léeg it muy gaar ay julit léeg-léeg julit boo xam ni day xam ne lii ma nar a def de lu xaraam la léegi nag dana wuti borom xam-xam bu ko ko daganal ñu ngi noonu léeg-léeg mu laaj ma sàmba boo ko daganalul mu laaj ma demba ba ba am ku koy wax lu lunt lu ko daganal mu doog ko def loolee mbokk ñi ñuy laaj ay nattu yu rëy da leen ci dal rawatina problème mu riba bi da ngay gis ne dana néew nga toog ab diir lu dul ki yow di la woo naan la waaw man c'est que dama dugg fii prêt bi ma war a def pour nangam pour nangam xam nga ni riba la sëñ bi bàyyi ko rek mu jeex problème mu soxna yi waajee dem jël soxnaam football ko ñetti yoon parce que ba pare ñëw naan la waaw c'est-à-dire que nag bii damaa meroon nag bii damaa nangam dama ala kulli xaal léeg-léeg dañuy xam ne lii ñu def nekkul loo xam ne lu dagan la mais nag daañ ko manipuler di waxloo borom xam-xam yi ba baa am lu ñuy sukkandikoo bu ko defee ñu ne laaj nañ diw mu ne nee na dagan la waaye mbokk li nga xam dafa xaraam xamal ne dafa xaraam même bu la ko borom xam-xam daganale daganul ci yow abadan loolu ñu bàyyi ci xel bu baax borom boobu nag subhanahu wa taala ne ñoom day xam nañ atte bi ba pare won ko gannaaw rasul sallallahu alayhi wasallam loolu daan wax nee na yéen a ngi ñëw di atte woo ci man léeg-léeg nit ñëw ak làmmiñam bu rëy waxa waxa waxa wax ba ma jàpp ne moo nekk ci dëgg waaye même bu ma ko attelee jox ko dëgg na xam ne safara laa dagg jox ko te mooy atte borom atte te yow xam nga ni nekkoo ci dëgg du daganal loolu abadan mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala wëlbati ko wàcce tawraat mu ne ñun yàlla ñoo wàcce tawraat nekk na ca njub nekk na ca leer donte ne suñu borom bi muy wax alquran waxul nekk na ca njub waaye dana hudan lin nas hudan lil muttaqin alquran léppam njub la waxul nekk na ca leer waaye alxuraan ci boppam léppam leer la wa jaalnaahu nuuran anzalnaa ilayka nuuran mubiina muy wane ne mooy téere bi gën a màgg bi jóge ci borom bi waaye tawraat téere bu rëy la suñu borom nee na yonent yi ñëw gannaaw tawraat ci la ñu doon attewoo te mooy depuis yonent yàlla Muusa baba yonent yàlla Isa di ñëw mboolem yonent yi fi jaar tawraat lañ doon attewoo borom bi subhanahu wa taala mu ne ca la doon attewoo yonent ya nga xam ne dañoo jébbalu leen seen boroom te it mbokk nangu atteb yàlla la koy jur mooy jébbalul sa boroom subhanahu wa taala balu yàlla atte nga daal di koy nangu moom la borom bi subhanahu wa taala di wax ne fala wa rabbika la yuminuun xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xaraja mimma qadayta wa yusallimu taslima jàngoon nañ ko ci suratu nisa jullit ngëmam du baax lu dul problème buy am day dem attewoo alquran ca suñ ko leeralee lii la alquran atte du ca am benn ñagg-ñagg xol da cay boole jébbalul yàlla ak jébbalu loolu mbokk mi ngi noonu moo tax borom bi lazina aslamu yoo xam ne jébbalu nañ yàlla ñoom de lañu santoon ñuy àtte yahud yi nooñu lañ ko santoon rabbaani yoon mooy ñi nga xam ne dañ leen doon tudde ay sëriñ mbooloo topp leen ñu leen di teeti di leen jàngal aayey borom bi di leen ca yar bu dee ah ahbaar mooy jamu xabr mooy borom xam-xam bu mag boo xam ne même bu amul ñu muy yar ak jàngale it quand même delluwaay lay doon ci masala yu mag yépp dañ ko doon day day ñëw mu koy leeral mu ne ñii day la leen yàlla santoon ñu aar téere bi yàlla bi wattu ko ca mooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo ñëw gannaaw yonent bi ñoom la yàlla wattuloo leen alquran ñu nekkoon di seede ne lii mooy lu jóge ci yàlla loolu it maa ngi wax alquran mooy téere yi yàlla wàcc ci ñoom ñoom la yàlla waxoon ñu wattu ko suñu borom yàlla nag subhanahu wa taala maadaama ñoom la ko wattuloo moo taxit ñoom dem nañ wëlbatiku dugal ci lu leen neex ca tawraat ak injiil ba tey boo demee yaa ngi gis li ñuy tudde l'ancien testament muy tawraat bi juif yi yor yaa ngi dégg lu nouveau testament muy évangile yi chrétiens yi yor na am la nga xam ne mooy cosaan ba day ci yàlla la jógee waaye nag la leen ko yàlla wattu wo- loo leen wattuwuñ ko yu bari ya leen ci arrangé wul dindi nañ ko yu bari ci seen bànneexu bakkan dolli nañ ko ca loolu nag safaanoo ak alquranul karim alquran moom yàlla wattuloowu ko kenn nee na inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun alquran ñun ñoo ko wàcce ca ñoo koy wattul suñu bopp kenn mënu cee wàññi dara kenn mënu cee yokk dara ñu ngi noonu te ji imaamu masjidul haram bu ñëween fii di ñu jiite it fët ba mu def golo gu ndaw mën na ko subhanallah téere bi benn téere la bal dañuy wax ci jamono mamun bokkoon ci xalifa yi dëkkoon bani abbas nee na dafa gis deenañ dafa gis benn juif boo xam ne nii daal xel mu rëy mi mu yor da ko yéem mu ne ko diw kaay tuub dugg ci lislaam danaa la jox alal ju bari mi ngi noonu jamono yooyu mu ne ko mi ngi noonu daan la jox ñaari junni dinaar nga tuub dugg ci lislaam mu ne ko déedéet man man du ma changé sama diine yi bàyyi nee na ñu teg ca ab diir ay at ñaari at nee na mu gis ah yahud bi dugg si ci jàkka ji sol melokaanu lislaam andi di julli xalifa bi bu ko woolu ko mu ñëw mu ne ko waaw xanaa du kii di saa waaji mu ne ko waaw waaw mu ne ko loolu dugal ci lislaam mu ne ko man daal dama dem ba mujj ma am ak sikki sàkk mën a xaaral comme man yàlla may na ma xam-xam nee na dafa jël téere tawraat bi juif yi yor daal di koy bind bind ab tawraat waaye nag dugal ci aaya yu ko neex génne ci aaya yu ko neex dem ci kilifa yi ñi nekk ci seen synagogue yi wan leen ko nee na ñu kontaan lool jël ay cadeau may ko nee na ma dem jël injil daal di koy recopier waat génn ci aaya ya ma neex dugal ci aaya ya ma neex dem gis ay labbe chrétien won leen ko ñu liir ko kontaan lool may may cadeau nee na ma dem jël alquran dindi ci ay aaya yokk ci saa waxi bopp mu ne ba ma demee jotumaa yegg sax ci imam ba waaye gaa yi doon jaay ca marché ba ba ka ca ñenn ñi gisee lañ ne ma li nga lii du alxuraan de lii dañ koo jaxase sànni ma ko ma ne nag xam naa ne lii moo jóge ca yàlla waaw loolu moom ma tax a tuub yaa ngi dégg ca mbokk mbokk alxuraanul karim a ngi nii suñu borom moo ko wàcce ci ay jaamam suñu borom moo ko wattu kenn mënu ci dindi lenn mi ngi noonu borom boobu subhanahu wa taala it yonente bi alayhi salaam xabar nañu ne alquran minhu badaa wa ilayhi yaud noonu mu wàccee bis dana mas a ñëw yàlla yëkkati ko génne ko ci dënn yi génne ko ci téere yi fépp fu trasu alquran nekk yàlla yëkkati ko fi axiri zaman dañuy dem ba benn xarf dootu des ci kaw suuf yàlla effacé lépp yóbbu lépp mi ngi noonu kon ñun buñ demee bay xëy gis alquran nañ sant yàlla góorgóorlu ci suñ kemtalal kàttan borom boobu nag subhanahu wa taala ne borom xam-xam yooyu lañ defoon ñu nekk shuhada mbokk borom xam-xam témoin la pour wone ne lii la yàlla bëgg mais malheureusement borom yi xam-xam yi démb ak tey yépp séddilikoo nañ ñetti parti parti benn bi mooy li ñuy tuddee ulamaawu dawla ay borom xam-xam yoo xam ne nguur gi lañu fi nekkal loolu mi ngi ëpp ci dëkk arab yi ngi ëpp ci dëkk arab yi nga xam ne lu bari dañu bëgg seen peuple jéggal leen dañ koy layale ci ay alquran daañu am seeni mufti yoo xam ni président bi lu mu bëgg a daganal rek ci moom la ko jaare la mu daganal ko mi ngi noonu am na benn waaye bu doon nettali benn ci dëkk arab yu ñu xam sax waaye nee na mufti bi dañ koo woo muy war a wax ci planning familial xam nga mbir mi compliqué na mu ñëw ba ci studio bi nag mu ne technicien bi waaw mbir moom dañ ko bëgg a daganal am dañ ko bëgg a xaraamal sax ñu ne ko ah cheikh dañ ko bëgg a daganal de mu ne ko alhamdulilah commencé waaw yàlla day bëggul ay ay ay nit ñu néew doole yàlla dafa bëgg peuple bu dëgër nangam kon doom yu bëri nangam wax loo xam ne nii day wane ni wàññi njur ñi moom lu dagan lu jara def la bu ko buur bi ne woon dama bëgg peuple bi bëri ay doom léegi mu ñëw indi aaya ak alxuraan yi nga xam ne day daganal loolu loolee mbokk la ñuy tuddee ulama wu daw la nga xam ne li neex góornaaw la ñuy wax amma boo ñëwoon suñu réew ñun lan lañ bëri de mooy li ñu tuddee ulamawul umma ñoo xam ne bànneexu mbooloo mi rek la ñuy dab ay oustaz théâtre kat yoo xam ne bu ñuy waxtaan kenn du mer kenn du am ñagg-ñagg xol lépp da ngay gis ñëppay kontaan loolee mbokk mooy pour yëkkati sa kot nit ñi tagg la gërëm la jël alal jox la daganal ci ñoom lépp loo xamee ne nii ah mi ngi noonu day nekk ci lu leen neex gis naa ci kenn koo xam ne faatu na léegi yàlla na ko yàlla yërëm conférence bu mu nekk am jigéen ñu koy laaj waaw loo xam ci xeesal bi mu ne waaw xeesal xeesal kay ku ne xam ne leer a gën lëndëm waaye diw leen waay yaa ngi dégg jigéen ñi xaqataay kii nangam ah mi ngi noonu tey moom mi ngi ci lëndëm mi ngi noonu yàlla na yàlla jéggal ñu jéggal ko waaye ala kulli xaal mbokk loolu dafa bari ci yow borom yow miy déglu ngay ràññee am ñoo xam ne nii na nit ñi kontaan rek te mbokk alquran du loolu alquran yeneen bi da ko yóbbu bashiran wa nazira da ngay wax lu neex wax lu naqari wax lu merloo nit ñi wax loo xam ne nii day jaaxal nit ñi lii mooy waru goro yonent yi bashiran wa nazira borom boobu nag subhanahu wa taala ñetteelu mbooloo mi ñu ngi ñaan yàlla na yàlla boole ci mboole boole ñu ci boole ci borom xam-xam mooy li ñuy tudd ulamaul milla mooy ñoom li ñuy wax mooy lii la yàlla wax lii la yonent yàlla wax su ma sàmba kontaanee moo xam su ma demee meree moo xam loolu nag mooy ashuhada yow daal li la sant yaa ngeeg mbooloo mi ne leen yàlla nee na ci alquran nii yàlla nee na sunna yonent yi yàlla nii ku gëm moo xam ku gëmul yaa xam mi ngi noonu amoon nañ suñ benn maam daana wax luuru su mu sànn waare ba pare na leen gaa yi ndigali yàllaa ngi nii da yéen soppe yi ku gëm jëfeel ku gëmul nuur ne noonu yi ba ñuy dem ci buur yàlla muy atteeg ñun di layoog ñun ci téere ya mi ngi noonu jeex na loolu mooy sa warugar yow borom xam-xam wa ma ala rasul ila al balaax yonent dara ñeenu ko lu dul jot li yow it borom xam-xam lii du sa mbiru bàyyi du sa mbiru maam waxal li yàlla wax rek jeex na kaanu alayhi shuhada bokk na lu leen yàlla waxoon bu leen ragal nit ñi ragal leen ma ay yéen borom xam-xam yi bu leen ragal nit ñi ragal leen ma nit ñi moomu luñ la njëriñ moomu luñ la lor liñ lay jox sa wërsëg la yàlla tudd ci yow kaso biñ lay tëj ak génn giñ lay génneeg luñ la mën a teg mënuñu laa teg lu dul yàlla dogal ci yow kon bu leen ragal nit ñi ragal leen ma ca bu leen jëndee samay aaye njëggu néew bu doon te ne boo waxee lu neex nit ñi ñu yëkkati prés palais présidentiel jox la it mbokk loolu jënd aaye yàlla yi njëggu néew la cay waay boo xamoon ne wax nit ñi la yàlla bëgg ba am kenn ku ci jube kooku rek yonent bi alayhi salaam nee na yàlla jubale ci yow kenn nit moo gën àdduna ak li ci biiram kon bu leen ko jëndee njëggu néew borom bi nag wëlbati ko ne koo xam ne day atte woowul li yàlla wàcce ñoom day ñooy yéeféer yi ulaayka humul kaafiroon na am léegi-léeg nga dégg ci benn waay yàgg na ñu koy tudde ay alimul allaama muy wax ci suñu rajo télévision yi di wax waaw ñooñu di wax affaire atte l'islam yàlla loolu muy wax ci alquran loolu yahud yee tax muy wax li nga noonu ñu ngi naan tawraat ak nangam waaye mbokk yàlla bi ñu waxee mbir yahudi ba pare dane wa man lam yaxkum képp koo xam ne atte woowoo te loolu yahudi da ci dugg nasaraan yi dugg ci te même buñ d'accord nag ñoom ci aay bi sax yahudi lay waxal xoolal aay bi jàkkaarloog moom ci page biñ jëm nga xool ndax kooku yahudi lay wax tam waxloog yahud ku atte woowul li yàlla wàcce kooku yéeféer la doonte ne ne kéeféer googu ñaari façon kéeféer la am na lu ñuy tuddee kufrun doonu kuf mooy waa ji ñi ngi atte woo lu safaanoog li yàlla wàcce parce que xamul ne yàlla wàcce na dara xamul ne yàlla am na lu ñu war a atte woo ca loolu mbokk bari na suñu attekat yi nekk fii ci réew mi ñu leen di tuddee ay magistrat ay procureur rek ay lu mën a doon xamuñu alquran jànguñu alquran yi gën a simple sax xamuñu ko ay zakat ak ay xamuñu ko xamuñu ne alquran dafa ñëw pour ñu wàccee ñu attewoo ko pour ñoom jàpp nañ ñi seen bàyyi deewoon na daaw nañu dem sëriñ daara bi jox ko neexal ko dara mu wàcc leen kaamil sama kër gi ma war a sant ci wàcceel ma kaamil pour ñoom kaamil bi loolu lay jëriñ mais ñooñu dañ leen war a xamal ne dañoo war a attewoo alquran am naa ko mel noonu bu attewoo lu dul alquran dañu wax ne yéeféer la waa ji nga xam ne itamit moom xam ne ne alquran la ñu war a attewoo xam na loolu xam ne ne alquran di koy dëgg waaye ba muy dem bànnee ko bakkanam yóbbu ko mu attewoo alquran kooku dañ ne mi ngi def kabair bu rëy bakkaar bu rëy rëy rëy kéeféer la donte ne duñ ne génn na ko ci diina ci mu des nag keneen keneen ki mooy kan moom jàng na xam na alquran xam ne li yàlla wax waaye mu ne atte yooyu doyu ko yii valable suñu siècle atte yii ñu créé moo gën a maandu mbokk ko mel nii da koy génn ci diine la ko génn ci diine du ne attewul alquran waaye la ko génn ci diine mooy weddi gi mu weddi aayooyu borom bi ca sunu borom nee na afa tuminuuna bi baadil kitaab wa takfuruuna bi baad ndax da ngeen di gëm lii weddi lii fa ma jazaau man yafalu zalika minkum illa xizyun fi lxayati dunya summa yowma alqiyamati yuradduuna ila ashaddi al azab képp ko wedde benn aaya danaa la toroxal àdduna delloo la ca gën a tar ci mbugal loolee kon lu ci mën a doon ngal la way nañu xam ne danger la ci képp koo xam ne yaa ngi atte doomu aadama yi ca ba nga leen di atte loi yi yàlla subhanahu wa taala tëral indi woo loi yooyu seen kaw mi ngi noonu Cheikh Ali
فكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك فأولئك هم الظالمون
barakallahu fiik suñu borom mu ni wa katabna alayhim fiha ñun dey bindoon nañ ci ñoom ca loola ci bind ga mooy farataaloon naa ca ñoom anna nafs bi nafs bakkan bu rey bakkan nañ ko rey wal ayna bil ayni ku fuq bëtu nit nañ fuq bëtam wal anfa bil anf ku dagg bakkanu nit nañ dagg bakkanam wal uzna bil uzn ku dagg nopp nit nañ dagg noppam wa sinn bi sinn ku damm bañu nit nañ damm bañam wal juruuxa qisaas jam-jam ya it na doon lu ñuy fayantoo ca nam tolloo fa man tasaddaqa bihi koo xam ne sarxe na ca loola ay lam waroon a fayoo mu bale ko fa huwa kafaaratun la loolu dana nekk lu koy faral ay bakkaaram wa man lam yaxkum bi ma anzala allah ku atti woowul la nga xam ne yàlla da ko wàcce nag fa ulaika humu zalimun ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy toñkat ya mi ngi noonu mbokk waxoon nañu leen ci li paase ne suñu boroom bu ñuy nettali lam indi woon ca tawraat ak injiil loolee day woñe ne nam leen ko sante noonu lañ ko sante ca qisaas boobu jàngoon nañ ko ci suratul baqara wa lakum fi lqisaasi xayaat ya ulil albaab suñ borom ne su ngeen bëggee jàmm am ci seen société na ngeen tëral qisaas mooy la tubaab yi doon wax la loi du talion ca mooy nit ki teg leen pennu képp koo xam ne jóg na di def moroomam nangam loolu mu ko def moom daañ ko ko def loolee kese mooy lu mën a delloo doomu aadama yi bañ a bañ a jalgati ndax dalay leer ni su ma jógee di fukki bëti ma sàmba saa bët laa fukk loolee dara du la ko jaral mu ne kon yàlla mu ne bind na ci ñoom ne leen bakkan bu rey bakkan nañ ko rey ca mbokk loolu mooy la nga xam ne moom la lislaam tëral malheureusement nga dem dëkk bu ñuy tudde Sénégal quatre-vingt-dix-sept pour cent nee nañ ay jurit lañu suñu borom yàlla tëral ab téeréem ne ko rey nañ ko rey seen maam ya nga xam ne ñëw leen jiitu ca palais assemblée tëraloon lool it ñoom ci seeni loi reconnaître peine de mort waaye ñun ñu xëy xëy ne ah yàlla daal su atte bi moom maanduwut su atte bi jubut lii c'est trop barbare dem ca assemblée signé ne bis na ki tey loolu teggi nañ ko ma sàmba bu la neexee jëlal sa fetal demal rey juróom fukki nit kenn du la rey kenn du la rey di loolu la ñu wax de buñ ko waxul ci làmmiñ it moom la ñu wax ci jëf yi reyal ku la neex kenn du la rey ñu ngi noonu borom bi subhanahu wa taala ne lii laa farataaloon ci ñoom waxoo nit ne ki dem dem bëtt la nga xam ne mooy bëttu doomu aadama walla noppam walla bakkanam walla xatta bëñam la damm loolee da ngay gis ne suñu borom yàlla nee ne nañ ko def lu toll ne lam def kooku waa jee moom dafa ñëw jël jaasi cor doomu aadama bi walla jël paaka jam doomu aadama bi su boobaa it nañ jël jaasi ji cor ko ko lu toll ne lam cor waaja jël paaka bi dëbb ko ko jam ko ko lu toll ne lam dugal ca waaja yii yépp mbokk da ngay gis ni moom la suñu borom yàlla tëral ci ne lii mooy loi bi yàlla tëral ca mbokk xam leen ni lii dong moo mën a delloo nit ñi gannaaw historien yi wax yàlla xam nee nañ ca buuri kajoor yu yàgg yaa yàgg am na ca benn buur boo xam ne jamonoom rey yi dafa bëri lool léegi nag mu woo tund yépp na leen gis ngeen man nit ku rey nit xawma nu ma koy attee képp ku fi reyati nit danaa leen yóbbu ci yàlla ñu atte leen ah yàggul dara am ku dem rey moroomam mu ne ñu jàpp ko ñu jàpp ko ñëw ana nii bi ñu ne nii mun a boole leen takk ñu boole ko nii bu takk ba mu dëgër mun a gas leen ñu gasum xool ñu suul leen ñoom ñaar ay waa bu ngeen demee yàlla àtte leen nee nañ ba baa mu fiy jógee keneen reyul beneen bakkan naam mi ngi noonu ay wallaay bu la wóoroon ne kii may dem jëreykat maa ngi moom la ñuy boole takk suul ci ab kii doo ko defeti waaye loolu mbokk la suñu borom yàlla tëral doonte ne ni borom bi yàlla it xam na ne ne doomu aadama yi léeg-léeg ay gàllankoor dal leen loo xam ne seytaane mën na leen ñu def loo xam ne du seen jukko loolu tax mu ubbi it buntub bale buntub bale comme ni leen ko wax woon ci dar si passé atteekatu lislaam balaa rey kenn ku rey nit daañu laaj famille bi nga xam ne ñoo war a donn waaj kii kat masalan moo rey seen baay ndax du ngeen ko baal mu joxe la nga xam ne mooy diya mooy njot bu doon fukki doom lañ bu kenn nee baal naa ko rek kenn du ko rey boo demoon tey Arabie Saoudite ki nga xam ne dafa rey nit doom yi am ci doom bu majeurul waa ji dañ koy tëj ci kaso bi dañ koy tëj ci kaso bi ba baa doom yépp majeur ñoom ñépp buñ dëppoo ne nañ leen rey nañ ko rey su boobaa lañ koy rey mais bu dee kenn nee na rek baal naa ko islam baal googu lay lay jëfandikoo daal di jël di ne de bu ko defee ñu joxe diye léegi nag kon moom la borom bi wax ne ki nga xam ne dañoo damm bëñam wala ñu fuq bëtam wala lu mën a doon moom mu bale ca yàlla tax suñu borom nee na yàlla dana ko baal kémtalaal bakkaar yuy toll noonee te moom la borom bi wax naan bale leen ala tuhibbuna an yaxfira allahu lakum xanaa bëgg leen yàlla baal leen naka noonu it ki nga xam ne dañ koo reyal baayam reyal ko doomam reyal ko kasa wa kasa suñ borom nee na boo balee day kala def loolu loolu dana far say bakkaar mi ngi noonu fa huwa kafaaratul la borom bi wëlbati ko nag waxoon na sànq ne ñi attiwoowul li yàlla wàcce ñooy yéeféer yi waaye fii mu tëje ko ne ñoom ñooy tooñkat yi mbokk julit dañu xam ne réew mu àttewoowul lu yàlla wàcce ñoom ñoo rey nit ñi ñoo gaañ nit ñi ñoo tax nit ñi di sàcc am na doomu aadama mbokk lenn rek ko mën a delloo gannaaw muy àtteb yàlla loolu moo tax ba wallaay bari na fii ñoo xam ne nii ñi ngi leen di rey état ci boppam moo leen rey ngir ñàkk loi boo xam ne nii am na ñu ngi noonu ñu ngi leen di nettali fii liñ mos a dégg ci sànq bi daan ànd ak Moustapha Gueye di wax benn histoire boo xam ne benn jeune ci caaro yi waa ji dafa rey morom ci dafa rey magam rey ko ñu toog quelques années mu gis waa ji nekk ci mbedd mi di bonde di dem ah moom it mu jekk ko rek ba jekk ko daal di koy rey moom tamit dem gendarmerie ne leen kii de moo leen sàmm ak rey naa ko maa ngi ni jàpp leen ma li ngi noonu loolu mbokk da ngay gis ne ñàkk tëral loi day tax injustice bari kenn waxul ne buñ tëroon peine de mort kenn dootu rey kenn waxuñu loolu waaye liñ lay seedeel liñ leen waxal bërki démb mooy buñ leen am téeméeri crime ci année bi dana wàññee ko ba quatre-vingt-dix see dañ sauvé looloo tax yooyu mi acte woowul li yàlla wàcce nga xam ne agresseur bi moom lenn rek la moo koy jaaxal xëy na mbooloo mi mais bu xisee ba dugg say loxo moom kenn dootu ko dóor kenn dootu ko xosi xosi sax duñ ko def waa ji jàppoon fukki nit fii ñii mu cor seen bopp ñii mu ah dagg seen i loxo seen i tànk bu xisee ba dugg ci loxo yi justice jeex na kenn dootu ko xosi ci dara lan lañ mën a def jugé condamné à perpétuité condamné à vie condamné à nangam mais kenn du ko laal ci dara bokk kii lan lay ragal kon suñu borom nee na yéen ñi attiwewul la nga xam ne nii mooy li ma wàcce ñee ñu tooñ yéen ñii yéene leen tooñ te nga noonu Cheikh Alim
وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون barakallahu fiik suñu borom mu ne wa qafayna ala athaarihim noonu la ñu toppalee ca seen jeexital ya seen yoon yañ jaaroon bi isa bni maryam ci isa doomi maryama ja musaddiqan lima bayna yadayhi mu nekk di dëggal la nga xam ne moo ko jiitu woon min at tawra ci tawraat wa aataynaahu l injil moom ci boppam ñu jox ko injil fiihi hudan wa nuur nekkoon na ci biir injil njub akug leer wa musaddiqan lima bayna yadayhi mu nekkoon nit di dëggal la nga xam ne moo ko jiitu woon min attawraati ca tawraat wa hudan wa mawizatan lil muttaqin suñ borom def ko njub def ko luy xuppaate di jajjaate ay delluloo gannaaw ñeel ña nga xam ne dañoo ragal yàlla wal yahkum ahlul injil bi ma anzala allahu fiihi suñ borom waxoon ne ay yéen waa injil nañu attewoo ca la yàlla wàcce ci téere ba wa man lam yahkum bi ma anzala allah ku attewoowul la yàlla wàcce day fa ulaika humul fasiqun ñooñ day ñooñ ña nga xam ne ñoo ñu génn topp wa anzalna ilayka alkitab naka nii it lañu wàcce jëme ci yow téere bi bil xaqi ñoo ko wàcce ci dëgg musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab muy nekk di dëggal la nga xam ne moo ko jiite woon ci téere bi wa muhayminan alayhi ay shahidan wa xaafida muhaymin mooy loo xam ne dana ko seede di ko sàmm fahkum baynahum bima anzala allah attel seen diggante ci li yàlla wàcce wala tattabi ahwaahum bul nekk di topp la nga xam ne mooy seeni bànneex amma jaaka min alxaq ci li nga xam ne dikkal na la ci dëgg li kullin jaalna minkum shiratan wa minhaja képp ci yéen def nañ ñeel ko la nga xam ne mooy sharia bu mu war a attewoo wa minhaj ak yoon wu ñu war a jaar pour jaamu yàlla walaw yasha walaw shaa allahu la jaalakum ummatan waxida su neexoon yàlla yéen ñëpp mu def leen benn xeet benn kese walakin liyabluwakum fi ma ataakum waaye def na ko ngir nattu leen ca lam leen di dikkee fastabiqul xayraat jëkkante leen ci yiw ila allahi marjiukum jamia ci yàlla mooy seen delluwaay mboole seen fa yunabbiukum bima kuntum fihi taxtalifuun su ko defee mu xabaare leen ca la ngeen nekkoon di ca wuute mi ngi noonu mbokk yonente ya bañ demee doon attewoo tawraat teg nañ ca sunu boroom indi kii nga xam ne mooy Isa fu mu koy waxee day wax doomi Mariama ndax chrétien yi jàpp ne doomu yàlla la boroom boobu nag subhanahu wa taala ni ñëw na ngir dëggal la ko jiitu woon ci tawraat loolu moo tax ngeen dégg ancien ak nouveau testament ca mooy injil dafa ñëw rek am ay réforme yu ndaw yi muy indi ci tawraat waaye cosaanu téere attewoo xatta christianisme mooy tawraat boobu injil nag changé na ci lu bëri borom boobu subhanahu wa taala ni maa ko jox injil def ca njub def ca leer lañ waxoon ci tawraat lañ cay wax ca mooy alquran moom yàlla waxul def na ci njub wala def na ci leer mais def na njub la leer la mu nekk di dëggal la yàlla indi woon ci tawra nekk téere boo xam ne it day mawisa la day xuppaate ca mbokk téere borom baa ngi noonu jullit bu koy jàng da koy jaj di ko xamal ne lii lu xaraam la ëpp koo def di ko xamal ne lii day mbugal la bu ko bu ko def ca mawisa mooy lépp loo xam ne dana la delloo gannaaw ci càggante boo naroon a def ci bàyyi farata wala càggante boo naroon def ci def lu xaraam ña cay jëriñoo nag suñu borom nee na mooy ña ragal yàlla lil muttaqin borom boobu ne waa injil nañu àttewoo la yàlla wàcc ci injil ca la yàlla wàcc ci injil moom rek la wàcc ci tawraat mu ne nag ku àttewoowul la yàlla wàcc day yow faasiq nga ay kàccoor nga bëggee nëb topp te it mbokk da ngay gis intellectuel yu bëri dañuy contre loi l'islam naam waaye yow yàlla nee na ku rey nañ ko rey yow fas yéene woo rey looy ragal ci loi boobu yàlla nee na ku sàcc nañ dagg loxoom te yow fas yéene woo sàcc ba ngay dee looy ragal ci loolu ku njaaloo nañ ko rey yow fas yéene woo njaaloo looy ragal ci loolu kon ña nga xam ne ñoom ñoo xam ne lii kat mbir la yoo xam ne mën na leen a dal loolu rek ñoom ñooy fexe ba looy borom bi subhanahu wa taala ñu koy gàllankoor amma julit moom day kontaan ci looy yooyu am ndax moom ba baa muy dee fas yéenewul lii yàlla wax moos ci ay looy tege ci muy wëlbati ko di ko def borom boobu nag bi ñu waxee tawraat wax ñu injil mu dellu siwaat nag suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam daa dina ko wa anzalna ilayka alkitaba bil haqq ñoo wàcce ci yow téere bi ci dëgg muy dëggal la ko jiitu woon ci ay téere di ko dëggal waaye tamit doon loo xam ne nii mooy la koy aar di ko wattu di ko corriger ba nga xamee ne nii lañ ca yokkoon yépp dana ko daq lañ ca wàññi woon dana ko indiwaat muy muhayminan alayhi heure booy atte diggante nit ñi atteel ci ñoom ca la yàlla wàcce ca ngal la waaye bul topp seeni bakkan ca la nga xam ne dikkal na la ci dëgg ca mbokk mi ngi noonu soo demoon bay àttee suñu borom nee na nañ jëfandikoo alquran muy benn suñ demee bay attewoo alquran it buñ topp suñ bànneexu bakkan muy ñaar loolu muy wone ne képp ku jóg di atte doomu aadama yi ca yow la nga leen di attee du alquran jub nga ak juboo maandu nga ak maanduwoo au départ sa atte boobu du atte bu yàlla gërëm loole mi ngi noonu amma waa ji nga xam ne jël na alxuraan di ko attewoo kooku de départ yàlla gërëm na ko waaye ndax attee ne la alxuraan waxe loole mooy mbir ba nga xam ne moom la ko yàlla di toppe kon borom bi ne ko bul topp seeni bànneex suñu borom subhanahu wa taala loolu bi mu ko waxee la yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax ne attekat yi day ñett lañu ki xam dëgg atte ci dëgg kooku àjjana la jëm ki xam dëgg atte bànneexam safara la jëm ki xamul luy dëgg ba pare wëlbatiku nay atte safara la jëm loolee kon mi ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ni mboolem xeet yi fi jaaroon ku nekk utal naa ko sharia bu muy atte woo utal ko jaamiinu yàlla bu muy jaar ba loolu tax ñu naan ñii ay yahud lañu ñii ay nasaraan lañu ñii ay jurit lañu su ma neexoon nag yéen ñépp ma def leen benn xeet ay yàlla bu ko neexoon sharia lay jël complété ko jox ko bay aadama alayhi salaam nit ñépp tënku ci loolu nu wax ñëw ba yonent yépp ñëw su neexoon loolu lay def mais suñu borom bokk na lu ko soob mooy sharia mu koy indi étape par étape jamono bu nekk lam laat mu jox leen lu tolloog seeni bëgg-bëgg suñ demee ba yeneen jamono ñëw mu am lu mu ca yokk am lu mu ca wàññi di ko def di ko def di ko def ba li mujjoon alquran nag mu daldi ci arranger bépp manki manki bu amoon ca ñu jëkk teggee ci bépp xat-xat bu amoon ca ñu jëkk loole borom bi mu ne kon def naa ko ngiree nattu leen ci li ma leen di dikke ca natt boobu gis nañu xatta ci biir alquran bi muy wàcc suñ borom daana indi ay aaya wëlbatiku man suuxal aaya yooyu indi lu bees loolu lépp pour nattu ay jaamam la borom bi nag nekkoon samay ndigal mi ngi nii ngan la waay fastabiqul xayraat e yéen nit ñi jëkkante leen jëm ci yiw te it mbokk suñ borom nee ne li ëpp ci ñun alhaakumu takaasur xatta zurtumul maqaabir li ëpp ci ñun li ñu itteel mooy jëkkante alalu àdduna loo ci am xeeb ca suñ doom yi jàng diplôme bu ñu am am nañ bëgg nañ bu ko gën a kawe ñii sàkku alal lu ñu am bëgg nañ lu ko gën a kawe waaye mbokk jullit loolu day lu baax la waaye xamal ne lu mu bëri bëri da nga ko fi bàyyi su ko defee borom bi ne jëkkante leen jëm ci lay leen di xaar yowmal qiyaama albaaqiyaatu saalihaat xayrun inda rabbika sawaaban wa xayrun amala la gën ci lu doomu aadama jëkkante mooy loolu yow julit del xool sa waa jàkka del xool say dëkkandoo del xool say mbokk fexeel ba bu la kenn raw ci jaamu yàlla am ma alal am ma xam-xam yéefar yu ko ëppale fuuf de xal xam-xamu àdduna rek ak alalu àdduna yéefar yu ko ëppale fuuf waaye yow ki nga war a teg sa bët mooy ki la raw ci jaamu yàlla nooy fexe ba lii muy def nga fexe di ko def ki nga gis muy jàng alquran mi ngi noonu loolee nan la lay dikkee lay benn soxna mi ngi may dikkal fan yi rek di ma wax kenn ci ay doomam yàlla muy dugg def lu ko neex doom jaa dafa émigré ma nga États-Unis dama bu jigéen la nee na imaam day maa ngi leen di sant ndax sunu doom ya nekk fee di leen déglu man yàlla dafa dogal dama dem Makka nee na fi ma toog ci kaaba gi naar yi ma gis ñu dendal ku ne xëcc sa kaamil di jàng ma leen di xool man li ñu xawma ci dara nee na ma am lu ma metti ma jóg dem ba ci kaaba gi daal dina yàlla maa ngi lay ñaan sa téere bi ngay wàcce ñii di ko jàng ci mënuma ko yàlla na bala maa dee yàlla na nga boole sa jàmm yi jàngal Qur'an nee na mu ne ma yàlla nag mi ngi ko jaarale bi ma demee fekki sama doom ya nekk Amérique fekk leen ñoom malgré ay intellectuels yu nekk foofu mais ñi ngi jël seen alxuraan di jàng diiran ba ma fa nekk ca laa nekk di jàng di jàng ba léegi imam damay jàng alxuraan yaa ngi dégg mbokk loolu benn échantillon la ci ki mu lay wax mag la loolu muy wañe ne mag ak ndaw ak yépp yow li la war a itteel mooy fexe ba di xool ah naka ngay def ba ki la raw ci diine noo koy dabe fastabiqul xayrat borom boobu subhanahu wa taala nag ne ila llahi marjiukum jamia ci yàlla day mooy seen delluwaay mboole seen fa yunabbiukum bima kuntum fihi taxtalifuun bu ko defee yàlla moomu dana leen atte ca la nga xamee ne moom ngeen nekkoon lépp di ca juyoo ca it mbokkoo fexeel ba mujj dëgg moo dàq de fexeel ba atte yu mën a am ci kaw suuf de mën naa bari waaye xamal ne atte bu mujj ba mooy ci kanamu yàlla foo mën a ñàkk dëgg waaye bañ demee ci kanamu yàlla yaa am dëgg loolu rek la jullit war a waajal li nga noonu loolu rek la jullit war a waajal ci sunu borom nee na lépp loo xam ne juyoo ngeen ci fii ci kaw suuf su ngeen ñëwee danaa leen ci atte rasul sallallahu alayhi wasallam bokk na lum ñu jàngaloon heure bu ma saan jóg dinaa fi la guddi daana wax ay yàlla yaa bind asamaan yeeg suuf yow yaay xam li nëbbu ak li feeñ yaay borom jibril ak mikail ak israfil yaay dajale say jaam di leen atte yàlla yàlla nag ñu déppaleeg lay dëgg ci juuyoo ga nga xam ne jaam yi dañ koo juuyoo woon li yonent bi alei salam na ko wax ci heure bu daan commencé li nga xam ne mooy ay xiyaamu layleem ca it loolu mi nga noonu ku nekk ci ñoom di ko war a ñaan ca làng ba nga xam ay yàlla yaay atte say jaam alaxira yàlla na ñu dëppaleeg lay dëgg ci juyoo bi say jaam yi juyoo naka ko yàlla nangulee yàlla na yàlla nangul ñu ko mi ngi noonu Cheikh Ali
وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله أن يفتنوك عن بعد ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون jazakumullahu xayra suñu borom mu ne yow yonent bi wa anixkum baynahum bima anzala allah atteel seen diggante ci li yàlla wàcce wala tattabi ahwaahum bul topp la nga xam ne mooy seeni bànneex waxzaruhum ngal la waay moytu leen an yaftinuuka am baadi ma anzala allahu ilayk ci ñu lay fitnaal ci lenn li yàlla wàcce ci yow fa in tawallaw bu ñu wëlbati ko wane gannaaw faalam annama yuridu llah xamal ne day yàlla subhanahu wa taala bëgg na an yusibakum bi baadi zun an yusibahum mu laala leen bi baadi zunubihim ci lenn ci seeni bakkaar wa inna kathiran min annaasi la fasiqun doonte ne lu bari ci doomu aadama yi dañoo doon ñu génn ak topp afa xukmal jahiliyati yabxuun moo ndax atteb gaa yu réer yi la ñuy sàkku wa man axsanu min allahi xukman li qawmin yuqinuun ana ko gën a rafet yàlla atte ñeel xeet boo xam ne dañoo gëm-gëm gu wóor mi ngi noonu ba ko kon suñu boroom mi ngi feddali ñeel suñu bu yonent te mi ngi ci jublu xeetam ba ila yawmi diin way ngalawaay yow mi atte del attee li yàlla wàcce ca bu ci topp bànneexu nit ñi boo ko xam leen ni bokk na natt yi ñu yàlla nattoo mooy loi yi ñuy tëral ci réew mi xam leen ne lee ñuy tuddee assemblée nationale ñoom la ñuy tuddee pouvoir législatif boo xamee ni ni ñooy tëral ay loi mbokk bépp député boo xam ne yaa ngi tëral ab loi wallawaay ñi ngi lay ñaan nga dellu gannaaw xoolat sa bopp ma man lii ma nar a wote ndax loi la boo xam ne bu dëppoo ngërëmal yàlla am déet loi bu ma nar a yóbbu ci jaami yàlla yi ca loole danañu fàttali suñ menn mag mu baax mu nekkoon ci réew mi muy El Hadji Abdou yal na yàlla jéggal ko yërëm ko keroog ba muy woote ci zawiya bi di wax di wax ak gouvernement bi bokk na la yàq ndaje ma ba muy wax ba yegsi ci ni ay waay yéen responsable yi ku nekk ci yéen lépp loo xam ne décision la wala loi la bu muy tëral na ca xool la mu koy jural ca kanamu yàlla fa la yuuxoo fa la ndaje ma tase yaakaar na yéen ñëpp xam ngeen li may wax ala kulli xaal kon loolu mooy mbir bi commencé ca législateur ba nekk ca assemblée wàcc ca juge yi nga xam ne ñooy atte wàcc ca chef suprême de la magistrature comme mën a doon ci ñoom ngallaawaay nañu xam ne jaami yàlla lañu ëllëgi ci si biir kenn par kenn daañu leen takk ba ñu dëgër takk dugal ci biir suuf delloo la sa borom jalla wa ala loolu tax borom bi ne attewoo leen li nga xam ne moom la wàcce bul topp bànneex yi ca moytul yow mi nga xam ne yaay kilifa gi nga xam ne yaay jël décision yi moytul ñu fitnaal la ci lenn li yàlla wàcc yàlla waxul ñu fitnaal la ba nga bañ a attewoo samay loi waaye lenn rek lenn rek ñu fitnaal la ci ca ñu ngi xam ne collectif des associations islamiques bi nekkoon aéroport am na jéego yi rëy ñu defoon ci benn code familial boo xam ne dajale woon nañ mboole mi sëriñ si nekk Sénégal te ñuy daje fële grande mosquée jege nañ xanaa quatre cent personnes ñoom ñëpp ñu signé ne lii de bëgg nañ ko ay loi yoo xam ne waxuñu nañ dagg loxo wala ku rey ñu rey ko mais rek kër yi bu ñuy miraas nañ ko attewoo ci lislaam sëy yi nañ nañ leen may ñu koy attewoo ci lislaam loolee ñu defar ko ab téere téere boobee da ngay gis ne bañ ko jébbalee ñi jiite woon réew mi ca jamono jooje da ngay gis ne bañ ko jotee lañ ko sànni seeni tiroir ba lépp dafa fa tabbi géej ca ñoom lenn rek lañ bëggoon te loolu sax suñu borom dane waru leen ko def téere bi yàlla bi da nga koy jël atte woo ko ñu ngi noonu borom boobu nag subhanahu wa taala ne moytul ñi fitnaan la ci lenn te loolu it muy wone ne yow mi nga xam ne yaay kii attewoo ci sa kër loolee wàllu miraasu sa baay la loolee wàllu sëy la ngalla waay na nga ci attewoo la yàlla bëgg maadaama xam nga ni lii mooy la suñu borom yàlla tëral borom boobu nag subhanahu wa taala ne nit ñi bu ñu wëlbatikoo bañ a attewoo lislaam dafay wañe ne yàlla da leen a bëgg a nattu ci lenn ci seeni bàkkaar ca it mbokk lool la demal camp pénal demal rëbës demal toutes les prisons yi nekk Sénégal prison bu ci waroon a jël cent trois cent nga fa prison yaa ngi fees del teewul agression tey la gën a bëri loolee kon ñu xam ne fitna lay jur wan gannaaw atteb yàlla loolu borom bi nee na yàlla di leen bëgg a mosol lenn ci seeni fitna loolu ñu bàyyi ci xel bu baax ñaareel bi mbokk ñàkk attewoo li yàlla tëral injustice bi muy jur day freiner développement réew tey jii demal ci àll bi nga laaj axe Dakar Kaolack Dakar Tamba Dakar fépp ñi dëkk ci wetu tali bi kenn ñemeetu cee yor ak jur dañuy ñëw rek gaare sàcc yóbbu mu dem ñu bari ci ñoom ñemeetu ñoo am ay tool yu baax toolu ñambi yu baax tool yu kii dañuy ñëw rek gaare yóbbu lan moo waral loolu mooy loi buy protéger doomu aadama yi di indi loi yi ñu teg ci sàcc si ba duñ ko def loolee da ngay gis dafa manqué looloo tax ku mel ni Ibnu Abbas daana wax loi yàlla yu ñu tëral ci nit ñi moo gën 40 ans yoo xam ne nawet bi dafa normal ñu tëral loon benn année de justice moo ko gën te loolu mbokk da ngay gis walaay bu dul woon sàcc Sénégal développé bu dul woon sàcc ñu bari bari bari kaw kaw yu nekk Dakar mu ñu nibbi bu la leeree ne loo am ci ak jur kenn du ko laal loo am ci ay tool kenn du ko laal kon ñu bari ci ñoom mën nañoo nibbi mais insécurité boobee da ngay gis ne day freiner la nga xam ne mooy développement moo tax suñu borom ne ñàkk àttewoo li ma wàcce day loolee xamal ne yàlla kon da leen a bëgg a mosal lenn ci seeni bàkkaar borom bi subhanahu wa taala nag ne li ëpp ci nit ñi ay faasix lañu mu daal di tëjee mbiri bi rek daal di ne waaw ndax nit ñi dañuy jël atteb jaahiliya mbokk kan mooy jaahiliya mooy bépp atte ba safaanoog alquran atteb jaahil la suñu borom mu ne dañuy jël atteb jaahil bëgg koo atte woo ana kan moo gën a rafet atte ñeel xeet boo xam ne dañoo gëm seen borom ca wallahi mbokk ki gëm yàlla ci ngëm di dëgër ci moom du sikk sàkka ci ne li yàlla wax rek moom la ñu war a def ci alquranul karim am maa nag koo xam ne nii da ngay woote woo lislaam waaye sa ngëm baaxul faasiq nga su boobaa loolu yaa ko dul mën a dégg su ko defee mbokk mbir bu mu mën a doon it lan moo ciy position julit mbir day am nga mën koo dindi ak sa loxo nga dindi ko loolee kon attew ñàkk attewul islaam su kattan amoon dañ ko war a dindi ak loxo mais ndax kattan googu am na mbokk kattan googu amul ci li ñu xam ci réew yi julit yi koy attewoo yëpp léegi-léeg ay ndaw di def erreur xëy xëy na ñi daal ay yéeféer lañu dañu war a dal seen kaw waaye mbokk amul benn boroom yi xam-xam yi ñuy sukkandikoo yuy nangu loolu ay ndaw di jóg di dal ci kaw état parce que état attewul alquran mboolem expérience ñi ko def ñépp lañ ci jële ci musiba moo ëpp lañ bëggoon a réparer lañ ci rey ci jullit moo ëpp lañ ko bëggoon réparer ba tey lu mel noonu la ñuy gis demal fële ci lépp loo xam ne dafa nekk ci ay Boko Haram ak dafa Daesh ak dafa nangam nga xam ne dañoo jóg ne état yi kat attewuñu lislaam dañu war a daaneel wallahi mbokk la ci lislaam perte moo ëpp foofu lañ cee uti loolee kon lan moo ci des mooy boo ca mënee wax wax ca falilahi alhamdu Sénégal day may nañ ñu ñu ngi wax moo tax imam Sarr toog fii naan atte nangam am nay dëkk arab yoo xam ne bu doon mooma booy pare kaso ngay fanaani bi nga noonu ah léegi nag comme may nañ la nga wax dee ci wax boog di yee mbokk julit ñi parce que ka nga xam ne mooy Muhammad ma nekk ci di atte ca mu wóor ko ni lii may attekat safaanoona ak li yàlla bëgg yàlla la mu wax ci alxuraan mooy lii ku mel nii ba tey dañ naan mi ngi ci kabair mi ngi ci kabair bakkaar yu garaaw waaye nag duñ ne daf koy dugal ci kéefér am naa nag bu demee ki dem ba jàpp ne loi yee mooy loi yu baax alxuraan yii yooyu daf ñuy tardeel kooku ab yéeféer la looloo tax ñuy leeral yi suñ kemtalal kattan yow mi nga xam ne nag munoo jëf munoo wax lan moo la dese mooy na la naqari bépp loi boo xam ne da nga caa nar a atte woo ñu lay nar a atte lu safaanoog la yàlla bëgg bu ca dem lépp lu ñu la ca imposé ba teg ko sa kawit na la naqari su boobaa yonent bi alei salaam nee na sa jaan wàcc na ku gis yéen lu bon na ko di ndég loxoom mënoo wax ca mënoo na la naqari sa jaan wàcc na sa digganteeg sa boroom su ko defee it li ñuy ñaan rek yal nañu yàlla dem ba yee jurit ñi ci penku jant soowu jant ñu xam ne seen teddaange mooy ñu dellu ci seen téere boroom yal na yàlla defal ñu ko ci may ñu aafiye fi dunia wal axira wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain dama jàng man droit la jàng ñu ne ma procureur man nekk ci kanamu benn atte boo xam ne li fi suñu loi réew wax ak la yàlla wax dafa safaanoo naka lay def naka ngay def day mën nañ leen cee jox benn exemple benn góor gu ñuy wax Omar Ndiaye ancien ambassadeur avant muy nekk ambassadeur magistrat la woon daan atte bis la dem conférence aéroport tombe fa ñuy wax ci wàllu atte l'islam ak atteb ceddo keroog la jël décision ne moom day génn ci la nga xam ne mooy atte ñu ngi noonu ay xaritam jéem nañ ko bundu xatal sax nee na yóbbu ma ci ay yenn sëriñ ñu ne ko mais garaawul loi yi nangam nangam waaye nee na moom bi mu toogee xalaat ak conscience am xam na ne tiim doomu aadama bi yàlla ne kii de lii la def atte leen ko lii yow nga ñëw naan nañ loi bi mooy nañ ko teg lii loolee moom ca la dem génn ci magistrature complètement yàlla subhanahu wa taala mii xéewale it yàggul dara mu xéewal ku lu gën lam nekkoon ba nga xamee ne daal loolu moom mbir la moo xam ne nii doomu julit war naa fexe di ñaan yàlla bañ a toog place boo xam ne day atte nit ñi ci lu bokkul ak la yàlla wax gannaaw bi suñu borom ne kii atte woo lu bokkul ak lu yàlla wax yéeféer nga tooñkat nga faasiq nga ni nga doon wallahu subhanahu wa taala alam naam bismillah naam
nga xamante ne moom daa intentionné pour jéem jaasi loxoom day fexe ba borom bi jot na xam te bu ko bàyyee daanaka ñu xamul diine yi amul benn yërmande ñuy téye dossier réew mi di ci buntaasal jaamu yàlla yi moom intention bi moom loolu la quoi mooy képp ku ci nekk képp moo xam na diine li lay jéem a fee loolu léegi loolu fan lan mooy mbiram ci mel noonu
bu fu- kooku pour nekk président wala pour nekk lan ku nekk magistrat par exemple bu fekkente ne nekk na may ala kulli xaal moom daf ma wax wàllu atte la ma wax waa ji nga xam ne day taxaw di atte bokkul ak la nga xam ne mooy droit droit moom lu yaatu la léegi waa ji bu dee ne dafa nekk foo xam ne mën naa nekk di défendre nit ñi masalan lu mel ne avocat ndax avocat araam na avocat araamul avocat en tant que avocat araamul su dee ne yow da nga nekk avocat comme cas bi ngay wax nga xam ne yow sa problème mooy heure boo gisee jullit bu ñu nar a xañ àqam nga ànd ak moom ba jox ko àqam avocat boobu avocat bu yàlla gërëm la moom la yeneen ci bàyyi salaam di wax naan dimbali sa mbokk jullit bu ñu ko tooñee loolu nag bokku la kii taxaw di àtte masalan benn waay ngi nii yor na ay soxnaam dem fekk benn xale bu ndaw mu doomi jàmbur mu yegg ci moom violé ko ñu indil la ko ne la léegi àtte ko looy wax li loi li loi réew mi wax ngay wax loolu foofu la problème bi nekk mooy yow mi nga xam ne day àtte amoo sa àq bopp booy jël di ko wax ñoom magistrat dañ naan nous disons la loi mais nous ne rendons pas la justice parce que yow da nga nekk dans un système tu es obligé li loi bi wax rek ngay wax sa yërmaane bu mu mën a doon nit mënul yegg foofu loolu daal moo tax ba nekk fa ñuy joxe décision àtte daal mbir la moo xam ne ndawal jullit ba ko mën a moytu moytu ko boo mënee dugg nag ci wàllu droit ci loo xamee ne nii ay la ñuy àttee ci wàllu loi loolee moom du yow décision boo ciy jël loolee da ngay gis ne nekkul lu ñuy tere loi travail ak loi nangam ak loi nangam wallahu subhanahu wa taala alam naam ala kulli xaal kon mbokk ñu doyloo loolu yal na yàlla defal ñu tawfiq sunu mbokk jullit yi nekk ci loi yooyu it yal na yàlla jéggal leen ci gindi leen ci wutal leen la nga xam ne mooy la gën wa sallallahu wa sallam ala nabina muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain